dal leen ci xibaaru benn waxtu yi dañu koy doore ak euh, foofee ci diwaanu Njaareem ponk yi fi gën a fës ñu ne euh, daal euh, dëkk bu ñu naan Njuufeen nekk ca département bu Njaareem benn suwaay moo fa xaru ca yooyu jamono njulli 1 ca département bu Bambey foofu la nit xaru ngeen baal ma foofee ca Njuufeen des fa faat bakkan loolu yëpp Babacar Diouf dina ci ñëwaat ndaxte takk der yi ibbi nañu ab enquête leneen itam Euh, lu ñu nemmeeku muy euh, fitna gi nga xam ne euh, nemmeeku nañ ko ci diggante way politique moo xam kaddu yu fantasiro wala sax jëf joo xam ne léeg-léeg des koy naqarlu kuréel gi ñu dippee initiative pour le développement ñoom ñaawlu nañu ko ka ca bopp ba di maître Djibi jàlloo ak ki naataangoom nee ñu daal li ko waral mooy ñenn ci askan wi war a yëkkati kàddu danoo dem ba daal maanaam ñenn ñi waroon a wax danoo waxut loolu nag moo tax mbir mi di gën a yokk euh, président bu euh, euh, réewum Gambie di Adama Barrow ca Banjul lay waatee ñaareelu mandaam ginnaaw bi nu ko falee ñeenti fan ci weeru décembre atum 2021 bii nu génn moom njiitu réew bu Gambie woo na ay naataangoom yu bàyyeekoo beneen réew bokk na ca këdu jiite fii ci Sénégal muy président Macky Sall daan ci ñëw ci kanam faram-fàcce ko ak Abdoulaye Cissé li ci yenn kaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram-fàcce. rafetloo ci ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futur Média xibaaru marax yi mbokk yi dañu koy door ak nanu ko junjee foofee ca diwaanu euh, Bawol dañu fa nimiku fitna ndax euh, dëkk bu ñu naan Ndioufène ca département euh, bu Njaareem benn suwaay la ñu fa faat ci loo xam ne daal lu doy waar la njulli un moom ca département bu Bambey keneen moo fa xaru ba tax na police ak gendarmerie ibbi nañu enquête ngir xam mbir mi ana lan moo ko waral lu ci mën a am coow bari na foofee ci diwaanu Bawol Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye lañ ci àndal mbir mi mu ngi xewee ci quartier Ndioufène ci commune Ndank seen ci département bu Diourbel benn waay bu nu ne dañ doon sàcc ab fas moom lañ fekk mu faatu néewam ñu fekk ko ci côté fas bi mu bëggoon a sàcc moom nag ba kenn xamagut ku mu doon ndaxte bi mbir yi am yorut woon benn kayit boo xam ne nii mën naa fexe ba ñu xam kii ku mu ak fu mu jógee wante loolu teewul police fi mu nekk nii ubbi na l'enquête ci mbir mi di commencé di déglu nit ñi fi mu nekk nii nag ñetti nit teg gum nañ leen loxo ki ci gën a fës sax moom moo di ki nga xam ne moom moom moom fas wi ndaxte lii nga xam lii xew moom xel yépp moom lañ jox bopp ne moom moo ko def moom nag ñu ngi koy toppee faat nit boo xam ne nii da ko teg ci tey ak xel fu mu nekk nii nag teg nañ ko loxo te mu ngi en garde à vue ci commissariat urbain bu Diourbel ci waxtu yi ñuy jëm nag mën nañ koo jébbal procureur beneen mbir mi nga xamante ni mu ngi woy di ëlëm xelu nit ñi mooy faatuk El Hadj Ibrahima Sarr mu di benn xale bu góor boo xam ne ni dañoo fekk muy sandamtalu ci benn garab ci seen biir kër ci dëkk bi di njulli 1 ci département bu Bambey ci mbir mi tamit gendarmerie bu Bambey ubbi na ci blanquette enquête boobee gendarmerie Bambey ibbi daan ci dellu siwaat ci ni mu gën a yaatoo ànd ci ak euh, Babacar Diouf ñu wax itam euh, ci leneen muy euh, naqar ak tiis bi xew ca pencum ndaw réew ma ak député bii di soxna Diema Ndiaye Ba moom nag xam ngeen ne moo jiite woon loolu ñu naan commission des lois vice président bu boobile coalition daal ne ñàkk nañu koo xam ne ku sori woon la ci ñoom ab liggéeykat la woon xarañoon waaye itam joxoon ñëpp cër Cheikh Abdou Mbacké Bara dolli euh, la ñuy teewlu ay kàddoom ma ngi ko yëkkatee ci diwaanu Touba Mbacke ga mu fekk baax euh, Pape Balla Gueye ak Talla Samb ñoo ko taataan. ndax euh, kooku fi bàyyi ko suñu collègue député la woon di ko jaale assemblée national yëpp di ko jaale le président assemblée nationale Moustapha Niasse di ko jaale président la République Macky Sall moom mi ngi xamante ci partem la nekkoon di ko jaale aussi le président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. Jéema Njaay liggéey nan ñaari at ndax commission loi yor na ko ñaari at ba dugg ci ñetteel bi ndax bu njëkk bi assemblée nationale doo ko taxaw à 2017 moom dafa ñëwoon fekk mu yore commission après commission di finance muy liggéey gu jigéen ku jàmbaare aussi wax dëgg yàlla koo xamante ni gëm na liggéey ndax avant muy ñëw fi nga xam mooy assemblée nekkoon na ci état bi. ci mbirum li nga xamante mooy collectivité territoriale doon liggéey ci ci ministère bi ba yàlla dogal tey mu duggoon ci politique euh, ba am si ndomba tànk député bi ñu ko yéegee tamit am na euh, metti toxal parce que koo xamante yéen doon bokk liggéey mu nekk président ma nekk vice président bi ñu yëngu lu bare bare ci mbirum loi malgré que léeg-léegi ñoo am ay différend ba ci suñu dernier gisante bi mujj gisante assemblée am nañ tuuti ay différend ci wax waaye lu mu si man doon rek yàlla subhaanahu wa taala mi nga xam moo ko indi woon tamit moo ko jëlaat ma koy jaale ak njabootam yëpp di ko jaale si euh, képp koo xamante ni bokk nga ak moom wala képp koo xamante ni nekkoon nga di liggéey ak moom wax itam euh, ci euh, waylu politique yi ak euh, fitna gi ñu nemmeeku bu nu ko waxee nag moo xam tibbante tànk wala sax yitam xeex ak yëkkati kàddu yu doy waar di ko jëmale kenn ku ne ci sa naataango loolu la ñu nemmeeku daanaka ci làngu politique gi ji bi Diallo moom ak i ñooñam bokk ci kuréel gu nu dippee initiative pour le développement ñaawlu nañ ko nee ñu nag li ko waral mooy ñenn ñi waroon a wax dañoo dem ba mbir mi xamatul lu leen di saf ñu dem ca gannaaw. Euh, toog di seetaan maanaam daal ñi waroon a wax ñu bari dañoo waxut moo tax euh, léeg-léeg bu kàddu jibee loxo dar gémmiñ dañu koy teewlu ay kàddoom euh, mi ngi ko yëkkati ca diwaanu Bambey ci teewaayu Babacar Diouf la. parce que Sénégal koo wax rek dafa naan politique man du ma politique parce yëfu salte la mais bu ñu salte ñi rek la bàyyi ci politique. bu boobaa suñu réew naka lay demee kanam. bu fekkente ne ñi nga xam ne ñoo yées ci ñun ñoom ñoo ñuy jiite ñun kan la ñuy avancer. donc suñu démarche mooy wax leen yéen ñi nga xam ne ay nit ñu set ngeen ay nit ñu baax ngeen ay nitu développement ngeen il faut que ngeen ñëw ngeen dugg ci politique. parce que bu buñ ci duggul dañ koy bàyyi ak saagakat yi. ak ak ak sànnikatu xeer yi avec les personnes violentes. parce que le Sénégal est à la croisée des chemins gis ngeen violence bi ni mu bëree instant bi ci ci réew mi. parce que koo xam ne amul argument. de développement amul amul vision kooku moom mooy indi argument de la violence ñun nag dañu am ay argument dañu am vision suñu vision mooy fexe ba nit ki fa nga nekk ñu fekk la fa dimbale la renforcer sa capacité ba doo soxla jóge foofu doo bëgg sax dem Dakar waxuma la di dem di jël gaal bi pour di dem tukki donc ñun loolu mooy suñu démarche pour loolu nag dañuy dañuy bind ay projet de lutte contre l'immigration clandestine parce que immigration clandestine li mu rey ci jeune sénégalais kenn xamul nu toll aywa ñu wéyal euh, ba tey xibaar yi jóge ci beneen euh, jóge ca njaareem ci candidat boo bile di maître Djibi Diallo doxantu ba duwaanu Ross Béthio foofe itam euh, candidat ba fa nekk muy Fall Seck moom it daal nee na bu ko falee dina fexe ba jël budget koppar yoo xam ne toll ci benn ci milliard ak itam hôpital de niveau 3 jagleel ko Ross ba noppi itam naataangoom ba fa nekkoon ne bu yàlla defee ñu fal ko liggéey ba dina ko wéyal ñu teewlu Fall Seck candidat bu commune bu Ross Béthio ca bët gànnaaru euh, réewum Sénégal ki fa toogal télévision Futurs Médias Ousseynou Diop lay moo taataan ay kàddoom. ci amoon delluwuñ ci benn yoon gannaaw maa ni par anné ah man xam naa kan mooy suñu président de la république ku am pas-pas la ci gox-goxaan yi bu mu jëlee réew mi. la instauré li ñuy wax équité territoriale mooy maanaam tollale askan wi yëpp dañuy ñaan yàlla mu kattanal ñu ba ñu jëmale suñuy dëkk bi kanam njagam a ngi wax tout à l'heure que ni programme d'investissement yi dafa bokk suñu projet phare yi maanaam ay infrastructure yu nga xamante ni di nga ci joxañ baaraam teg ci ñu ngi faral di wax hôpital de niveau 3 yàlla xam na ne bu ñu amoon lu raw hôpital niveau 3 lu toll ni ko hôpital Fann sax bu ñu ko yàlla mayeloon ñu indi ko fii ci Ross Béthio ndax suñu yéene romb na foofu parce que campagne bi ba tey bu nu jógee ci bët gànnaar réew mi ñu dem ca diwaanu Saalum Mariama Sarr xam ngeen ne mooy maire ab euh, euh, waaye euh, maire sortante lañ koy woowee ndax kenn tabaatu ko maanaam bokkul ci yile élection moom lu ci mën a am nag ma ngay dugal loxoom ci campagne boobule ci coalition bi mbokk mi Benno Bokk Yaakaar loolu nag benn ayu bés gannaaw ba campagne ba dooree moom soxna si daal ñëwaat na ci ay kàddu ne ma ngay ànd ak coalition bi di Benno Pape Mbaye Diawo Faly ñoom la ñuy fekki ci diwaanu Saloum. gannaaw ay bés ba nga xamante ni campagne électorale bi daal dinay démarré ki nga xamante ni moo nekk maire bu kaw la nag te moom investir waatuñ ko ci liste électorale yi daal di ci campagne bi Mariama Sarr di xamle ne ñenn ñi li ñuy wax dara amu ci moom mass contesté choix yi nga xamante ni patron Benno Bokk Yaakaar bi moom la def. di wax ndax Mariama Sarr dafa bokkul ci Benno bi wala bokk yaakaar ñun revendiqué wuñu ko Benno bokk yaakaar revendiqué wuñu ko dañ ko créer yaatu googu nag dañuy ñaan mu gën a yaatu ba nga xam ne ñëpp dinañ ci xaj te ñëpp ñëw ngir jàppale son excellence le président Macky Sall ku jóg rek moo tax nga jóg. ci jamono joo xamante ni coalition bi nag dafa soxla responsable politique am yëpp Mouhamed Ndiaye Rahma di rafetlu dugg gi nga xamante ni Mariama saa dugg na ko ci campagne bi. coalition Benno Bokk Yaakaar tey wane ne dooleem ci biir Kaolack. yaakaar naa ne tey kenn mënta waxati di laajte la coalition bi toll tey ci biir Kaolack. mu nekk candidat ci conseil départemental Pape Demba bi tey di xamle ni ñoom jamono ji danoo soxla ñëpp rek ngir mën a gagné élection yi. moteur bi déclenché nañ ko yaa ngi nii pilote nga man ko pilote la moo di buñ nangu kenn wutal ñu noon parce que c'est dans l'unité que nous ferons la victoire. ci meeting bu mag boobu nga xamante ni nag docteur Aliou Diouf moo ko organisé woon coalition Benno Bokk Yaakaar di xamle ne amul tur benn xel ñaar ne le 23 bi ñoom élection yi ñoom ñoo koy gagné. Pape Mbaye euh, Diawo ñu sant ko bu baax gërëm koo wax itam ci wàllu wérgu yaram ak mbas meek tolluwaay bi tey jii ci àllarba ji euh, la ñu xamle mooy ñetti téeméer doomu aadama ak fukk ak ñett yeewaal nañ jàngoor jile ca jamono ñetti téeméer ak ñaar euh, wéer nañu fukk ak benn lof am na benn doomu aadama bu ñàkk bakkanam bataaxal bi mu ngi tukkee ci ministère de la santé ki ko xaatim di docteur El Hadj Mamadou Ndiaye moom ngeen seen muy directeur de la prévention. ñu wax ci leneen mbokk yi muy euh, président Adama baro ñaareelu mandaam euh, tey lay waat fas yéene jiita waat euh, réewum Gambie bokk na ca ña ko wuy ji ku ci mel ni président Macky Sall njiitu réew bu Togo ak itam ñeneen maanaam daal lu toll ci juróom-ñetti njiitu réew ña nga foofu ca réewum Gambie ca Banjul capitale ba stade bu mag boobu lañu koy amal di fàttali ne ñeenti fan ci weeru décembre atum 2021 bi nu génn Euh, lañu ko taboon Abdoulaye Cissé euh, mooy suñu spécialiste jëm ci wàll wi xam ngeen liggéey bu rafet bi mu ci defoon ci réewum Gàmbi euh, jaadu na mu toog ñu waxtaanee lu ni mel Abdoulaye maa ngi lay nuyu. Faty maa ngi lay fay. aywa gis nañu li xew foofu ca Gàmbi opposition bi nanguwuñu woon victoire bi maanaam xeex bi dem nañ ba jeex bu mujj yaakaar naa barki démb lañ leen neenalaat loolu nan nga ko mën a jàngatee. Euh, processus bi ñoom ni ñu ko contesté dañoo dem ba sës c'est-à-dire mayuñu leen dara lii wane loolu rek mooy crispation yi nga xam ne am na ci biir kujje politique yi foofu ca Banjul parce que léeg-léeg perte élection mhm. bañ koo nangu euh, ñëg la mhm. te ñëg boobu moo am maintenant enjeu yëpp mooy fexe ba mhm. au-delà de prestation de serment bi nu président aadama Barrow di fexe ba boolewaat waa Gambie parce que tey crispation dëggantaan moo am ci société bi entre ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ak ñi àndoon ak opposition bi. Mhm. ba ci contestation bi ñu mujjee. Mhm. ba dem jusqu'au bout ba barki dem le cour suprême bi moom ci boppam. Mhm. nee na laat pétition bi nga xam ne bëggoon nañ ko dugal pour wàññiwaat. Euh, baati élection yi nga xam ne nii moom moo fal président Adama Barrow. loolu ci enjeu yi la. comment il va s'y prendre nan lay def ba yóbboole leen parce que du yomb. Euh, xëy na ci campagne bi euh, doon na bàkk ay ñoñam mais président soo faloo ba pare da ngay xam ni Gambie yëpp nga falul. moom nag mu ngi koy woote. xëy na ñi ñëg nangulaguñ ko ko pour l'instant mais loolu foog mu pose ay actes yoo xam ne mooy won ñi ñàkk mm-hmm. ne bokk nañu ci mandaam war nañ ci mën a gis seen bopp mm-hmm. du yomb nag parce que crispation yi c'est très très fort en Gambie aujourd'hui entre mm-hmm. moom président Adama Barrow ak coalition bi nga xam ne moo ko porté ak waa UDP bu maître Ousseynou Dabo bi nga xam ne moom peut-être jeexal na ci wàllu politique mais ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wër te xëy na ñoo ko puus sax ci stratégie jusqu'au boutiste bi nga xam ne nii moom la ñu nekkoon pour contester président Adama Barrow pour bañ ko reconnaître légitimité parce que ci loolu la ñu jëmoon ñoom. Mm-hmm. bañ ko reconnaître légitimité bi nga xam ne peuple électoral bi jox na ko ko du yomb même président Adama Barrow moo war a joxe gage yi gage yi nag ñaar la mën naa jaar sur le plan politique. ci parachever réforme yi nga xamante ni wax dëgg fa yàlla bi ñu ko falee 2016 moom la diggee woon ni dina ko def. te réforme yooyu malheureusement parachevé wu ko ci mandat de transition bi parce que am na lu bëri lu ñu waroon soppi ci constitution bi am na droit. humains yu bëri yoo xam ne waroon nañ ko dellusiwaat parce que président Yaya Jammeh bi fi nekkoon daf ko dindi woon ci constitution bu mujj bi. Mm-hmm. réforme yooyu malheureusement président Adama Barrow parachevé wu ko ci mandat de transition bi nga xam ne dafa déggoo woon a gars ne trois ans lay def. Mm-hmm. gis nga loolu indi woon contestation sax ba nit ñi naan ko three years jot na trois ans nga xam ne moom ngay def pour organiser élection def ay réforme peut-être réforme yi mooy ñu def ko deux tours deux tours souvent du arranger président sortant. Hmm. parce que ni muy demee ci réew yëpp bu ñu demee deuxième tour dañ lay sotti loolu xëy na bokk na ci point de crispation yoo xam ne moom taxaw na ci defagul réforme yi deuxième chose et qui est très important. Hmm. Gambie ku ne xam na ni ci wàllu wàllu koom-koom. Hmm. demeegul noonu. am nay jéego yu ñu teg nag. ak surtout at yi ñu jëm nii am nay projet structurant yoo xam ne moom président dama bëgg na koo def mhm. muy ci ay yoon mhm. muy ci ay tabax ay infrastructure mhm. war a profiter aussi ci sommet aussi bi nga xam ne fii Sénégal xam nañu sommet OCI impact bu mën a am ci réew ci développement infrastructure Gambie mooy dalal sommet aussi en novembre 2022 tax na ñu teg ay projets yu bari yoo xamante nii mhm. mën na développer Gambie mën na ko teg ci yoonu développement mhm. loolu nag fexe ba nit ñi gis ci seen bopp mhm. wàllu économie bi mbay mi ñu ñoŋalaat ko pêche ñoom tàmbali nañu ndax licence de pêche yi nga xam ne demoon na ci ay xeet bitim réew ñu koy jël gouvernement bi tàmbali na wàññi na licence di nangu na ci cinq ñu dese cinq pour nag ndaw yi mën a am xëy waa Gàmbi nag wuñu di nappal seen bopp yeneen xeet ñoo ñëw sénégalais ak ñeneen mais bëgg nañoo dem ci xeetu mbayum jën ba ndaw yi nga xam ne amuñu liggéey parce que Gambie il faut le dire bari na jeunes yu bëri yoo xam ne dañuy jël gaal yi di dem bitim réew. Mm-hmm. boo gisee ñu bëri ci immigration bi ay Gambiens bari nañ ci fexe ba téye leen ci biir réew mi mais loolu yëpp nag président Adama Barrow la ci yaatalam. Mm-hmm. ci koom-koom bi nit ñi gis ci seen bopp. Mm-hmm. bu dul loolu ils vont passer encore cinq ans. Mm-hmm. ci contestation crispation te xëy na du yombal. mandat bi nga xam ne ni moom lay jël. mu mel ni euh, Abdoulaye falaat nañ ko naam mais déception am na parce bi président euh, Yaya Jammeh bi ñu jóge ci bopp réew mi ñu bëgg dañu jàppoon ne ak euh, vent nouveau bi Adama Barrow indi coppite dina am a accouché d'une souris mun naa waxee noonu parce lu bëri li doon xaar quand gisuñu ko. et première chose li mu recycler waa kër Yaya Jammeh xam nga loolu problème la ci koo xam ne nii da nga doon xeex nguuram. Mhm. da nga doon xeex nu ñu doon nootee nit nii mais tey c'est vrai c'est la réalité mhm. président Adama Barrow recycler na. waa régime Yaya Jammeh mhm. ndax APRC APRC bi nga xam ne mooy parti wu Yaya Jammeh coalition Adama Barrow bi la bokk ñoom ñoo ko porté au pouvoir donc dañuy nekk sax ci logique de partage du pouvoir. Mhm. ak APRC sans Yaya Jammeh parce que Yaya Jammeh c'est vrai contesté woon na alliance boobu nga xam ne Adama Barrow def na ko ak parti am. Mhm. parce que moom Mama Kandé beneen candidat. moom la ne woon moom lay soutenir moom Yaya Jammeh li ko waraloon nag waxoon nañ ko analyse bi moo c'était simple yaay Jammeh dafa bëggoon nekk le maître du jeu maanaam li APRC di négocier ak Yaya ak Adama Barrow moom mu doon le négociateur principal. Hmm. mais ña nga xam ne ñoom ñoo ko teewal Banjul APRC ñooñu ñoo négocier directement ak Adama Barrow seen alliance Yaya Jammeh nag bu sañoon nekk le maître du jeu de telle sorte que ëllëg. Hmm. mu mën a dellu si waat mais dellu si bi bëggul dellu si en tant que citoyen dafa bëgg a dellu si. en tant que sta ak statut ancien chef d'État nga xam ni dañu koy garde jox ko ay indemnité jox ko li war yépp parce que Yaya Jammeh ñibbiseem ci biir réew ma en tant que personne en tant que Gambien wóorul sax pour sa sécurité. Mm-hmm. mais bu ñibbisi woon en tant que ancien chef d'État ak statut bi muy am ñu koy garder jox ko cër ak leneen loolu xëy na moom loolu la bëgg a négocier parce que nit nag foo mën di nekk. sa sa dëkk moom moo la gënal. te xëy na Guinée équatoriale ba mu nekk ci début ba neexoon na. waaye tey neexatul li koy waral mooy ña àndoon ak moom ña ñu ko booleeloon wala ña demoon ak moom ci seen coobare ñu bëri fan yi ñibbisi nañu gedd nañu ñibbisi nañu. Mm-hmm. bàyyi nañu ko. Mm-hmm. parce que gis nañ ni moom mëne na leen en bateau xëy na moom mu ngi ci bànneexam mais ñoom ay garde ak ay ay ni ñu koy ay surga yàlla na moom ñu bëri fan yi dañoo bàmbeeku ñibbisi. Mm-hmm. donc bàyyi nañu ko mu wéet. moom nag tey il tire les ficelles mais xëy na amatul légitimité boobu nga xam ne moom président Yaya Jammeh mën na koo jouer rôle en Gambie. Adama Barrow crispation boobu ni nga ko waxee mu ngi fa déception boobu am na surtout ci ñu àndul ak moom mais ñi ànd ak moom nangul nañu ko ko xëy na mm-hmm. dañoo gis ni réconciliation moom waral dafa lu feeñ nag ci élection bi fàtti te c'est très important mm-hmm. muy xeetoo biir Gambie parce que campagne bi junj nañ ko lu bari entre ay xeet entre soose joola ñu wax ko loolu kenn du ci gañe ci Gambie parce que kenn mënul xàmmee sax kii lu mu doon ak kële lu mu doon moom nag moo am légitimité boolewaat ñëpp parce que Gambie ña fa nekk yëpp mën naa wax ni ku nekk ci ñoom dégg nga au moins ñetti làkk. Mhm. soose joola pulaar wala beneen làkk. Mhm. donc ñooñu mënoo leen a xajale mënoo leen a xajale. malheureusement nag juste je finir par là Gambie ci période de prestation de serment bi ñu nekk nii président dama ñu ngi ci sax. Mhm. ay xumbaay la waaye nag délai beeg moom kenn maîtriser wu ko. ña ci actuellement ni ñuy wax ak yéen sax. mais dañu nekk ci période ne aussi. avant-hier Gambie dañoo am dig bu metti mhm. ñaari journalistes yoo xam ne vraiment ils ont combattu pour les droits pour les libertés en Gambie. Mhm. Euh, Pape Modou bu ma nee sax bu ma sañee ne Sénégambien la. parce que mhm. liggéey na ci Sud FM jamono yooyu fay samp ba tey bu nekkoon ci The Point Daily Observer loolu aussi ci mandat président Adama Barrow la. ñu tëj un journal Daily Observer ñu tëj ko ci accusation fraude fiscale yooyu mais ci période contestation yooyu nga xam ne ñu ko doon manifester ci lañ ko tëjeew loolu aussi gàkk-gàkk la ci mandaam ñu def. ñu def accident ñu décédé lundi. Mm. ay agent ministère de la santé la ñu woon waaye nag vraiment c'est ñu ñu war a rendre hommage la ñu. Mm-hmm. ak Moussa Ndaw un jeune journaliste ñoom ñaar ñoom ñoo faatu ci accident boobu. Mm-hmm. Euh, dëj la woon boo xam ne waa Gambie yëpp yëg nañ ko parce que aussi ñu am baat la ñoom tur la ñu ñu am jaar-jaar lañu ci wàllu. Mm-hmm. xeexal liberté ak droit journaliste ñu koy jaalee ñoom ñëpp Pape seen le doyen de la presse les correspondants Reuters en Afrique parce que ku tàggat la et ku am taxawaay la foofu ñu koy jaal ñëpp. jërëjëf Abdoulaye ñu koy jaale euh, Gambie yëpp seen i mbokk rawatina ñu sant la bu baax gërëm la Abdoulaye. jërëjëf aywa euh, Abdoulaye Cissé la ñu àndaloon euh, ci faram-fàccee la xew foofu ci réewum Gambie ñu dem ci tàggat yaram Malawi Sénégal ki nga xam ne nag mooy match bi amoon dem démb foofii ca Bafoussam diggante sunu gaynde yi ak doomi Malawi ndam demul ndam dikkul waaye nag fii ci réew mi bari fu ñu wax fu ñu def ay. fan zone euh, bokk na ca diwaanu Yoff di fa amal ay ndaje di ko fa seetaan supporters yi ñu bëri seen xel dalul ñenn ñi ne mënoon nañoo gën a góorgóorlu ba am ndam moo gën fuuf tembo gi Maimouna Ndiaye ak Younous Diatta ñoo fa doxantu. mu am xel ñaar ñeent fukki minutes yi ak juróom yi njëkk Sénégal ak Malawi dalul xel ñi nga xam ne ñoo ñëwoon ci fan zone bu Yoff di supporter j'ai constaté que coach bi dafa euh, indi trois milieux défensifs parce que milieu bi on a aucun créateur yoo xam te mun na mun na pousser bal bi vers l'avant. li may gis daal mooy joueurs daal ñu gën a ànd ak te ànd ak ñu bañ yàkkamte max bi ñoo xam ne max bi suñu max la comme maanaam joueurs yi lañ doon wax xëy na ñoom ñëpp teew nañ xëy na deuxième mi bu ñëwee changement am Sénégal am ndam loolu la ñaan yàlla incha allah. ci deuxième mi-temps bi xel daal di dal ñu gis ni coppite am na ci nañuy doxalee wante nag. score bi fa nekk jugu fa. deuxième tir bu cadré bu Sénégal Gana Gueye mu jëntal ga dara amu ci. li lépp terewul supporters yi gën a jug taxaw. ci juróom ñaar fukkeelu minute bi ak ñeent arbitre bi laa di joxe penalty jagleel ko waa Malawi lii ñu gis nii. dafa woyof lool. logique logique moom du penalty moom logique du penalty ah xam naa lii di ko ciblé parce que du penalty parce que logique la logique. ci mu ga mu dem vaar bi mu dellusee dikkaat ci décision bi xam ni joxe woon nañ ko fii nag xel dal na. li des kay mooy dal ci kaw Malawi marqué ay but li nag mujjuta am ca mujjantal ga li am kay mooy. metteel ñaari premier match yi amoon nañ ay lay naan équipe bi complet wul wala diw dafa feebar wala diw dafa gaañu mais tey équipe yëpp complet na ñu joué équipe Malawi boo xamante nii du point de vue technique ñoo ko gën baax techniquement du point de vue effectif également ñoo ko gën baax composition donc bu ñuy gis résultat bi nii on vraiment insatisfait du résultat. ñetti match Sénégal ni muy liggéeyee ba léegi ci terrain bi amul benn yoon coppite ci kaddu supporters yi nga xam ni dékk nañu leen suñu micro. li des kay mooy nee nañu ñu ñëwaat fii nga xam ni fi lañuy ñuy supporter Lion yu réewu Sénégal dinañu ñëwaat nee nañu duñu tàyyi benn yoon ñi ngi ci ginnaaw équipe nationale bu réewu Sénégal. aywa dañuy doxantu ba réewum Cameroun ca Bafoussam foofee nag euh, doomi réew ma euh, joxe nañ seen xalaat ci jongante bi nga xam ne am na euh, diggante Malawi ak Sénégal ndam demul ndam dikul ñoom daal dañoo jàpp ne gayndee Sénégal yi bu nu bëggee jël coupe bi faaw ñu soppi doxin laaj ak dox seen diggante ak Ahmed ña ak Mamadou Ndiaye mu mel ni élément bi jàppandiwul du ñàkk ñu dellu si ci ci suñu yeneen jataayu xibaar yegg si nañ ci ponk bu mujj li ci yéen kaay yeeg Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf yaa fi man joo xam ne saa yoo xeexee say dàll dañu la koy indil sa kër jikko joojee rek la gaynde Sénégal yi wanegum ca Coupe d'Afrique ba ca Cameroun record yéen kay ñoo nga de finale ya ñoo jiitu ci groupe bi ñu bokk jaar ak nañu ba yegg fa dalul moom kay la yàlla xam doy na gaynde yi qualifié ni ñu ci huitième de ñu xel ba ñuy football démb ak Malawi stade yéen ne kii di Kalidou Koulibaly mi doon soog a dellu si amul ci match bi ni ñu leen xamee kenn ki di Sadio Mané di xam ne ci xët mu njëkk yéenekaay bi ne ni équipe bi mel jamono ji neexuñu lise ko ne ko neexul kenn te yi doyul kenn ay gaynde yu tooy dóoruñu fayuwuñu la ñu gis ci coupe d'Afrique bi qualifié nañu ci huitième de finale yi waaye ci ñetti max yi jot a football benn bi la ñu gàñe nul dugal ci benn bit anki dina kay jàngat ci yëfi zëbutu mu ranke match démb bi soleil national mi ngi ñuy xamal ci xët mu njëkk ne li gaynde national yi football seen digg ak Malawi a dégg moo ki gaynde ndax li ñuy jëf du jëfi gaynde seen taxawaay du taxawaaye gaynde amuñu fulay gaynde amuñu njàmbaaru gaynde ci xët mu njëkk Vox Populi kàddu Aliou Cissé entraîneur bu équipe nationale bu Sénégal mu fay wax ne suñu efficacité des na waaye amuma ak jaaxle ci équipe bi du ñun rekk ñoo nekk ci ay jafe-jafe équipe yu mag yu bari gis nañu ne mbiri yombul ci ñoom Walf Quotidien nañu wax ji gudd gàtt daal moo di Sénégal ak li mu wanee ci Coupe d'Afrique bi a ci candidat yi ci élection locale yi Barthélemy Diaz candidat coalition Yewwi Askan Wi ca mairie bu Ndakaaru mi ngi wax ci Vox Populi ne ñi naan amuma bilan nañu ñëw ci sama commune dinañu gisal seen bopp la ma fa liggéey Amadou Ba mi coordonnateur u Bokk Yaakaar mel ne kuy bàkku ci journal Vox Populi moom Amadou Ba nee na Ndakaaru fépp mokk jamono ji waaye nag bu mu taxanaago moom Amadou Ba dem na bay xam leen ni fële ci Sicap Liberté bu ñu tëddee mën nañoo nelaw ba yandoor ndax Zahra Iyane Thiam liggéey na fa bu baax candidat Benno Bokk Yaakaar ca mairie bu Ndakaaru di Abdoulaye ca Cambérène ci mobilisation bu rëy ak mbooloo mu takk mu mu dajale yéenekaay bi nañu consigne ba mu fa joxe moom Diouf Sarr moo di sàkku ci askan wi ñu topp li kilifa diine yi digle ñu dégg ci xët mu njëkku Les Échos leçon àdduna bu Abdoulaye Baldé jox Ousmane Sonko ubbil yéenekaay bi Abdoulaye Baldé nee na ko man doon naa ba doon inspecteur général d'État te ndombal tànk ci administration foofee la mën a yam Abdoulaye Baldé na ñiy wax kenn ki ab inspecteur Pastef di Ousmane Sonko mi wax keroog ne fonctionnaire bu yore ay milliards ci réew mi sàcc nga déggaat na musiba ak mbelengaan ci mbuur yéenekaay bi dañu Maguette Sène ak Cheikh Issa Sall raté wuñu ko ci ay meeting yu ñu doon def Cheikh Issa Sall ca Mbour te fes Maguette Sène ca Malicounda fa la ñu fàttali sun Sonko démbam delloowaat ko palaasam Cheikh Issa Sall nee na Ousmane Sonko bu dee dafa bëgg lu mu wax rek na wax nit ñi kan mooy Juliana baa mu wax leen fan la jëlee xaalis bi mu yor maire bu Malicounda di Maguette Sène journal Le Mandat nee nañu moom it tegaat na Ousmane Sonko cib àndam nee na Ousmane Sonko xamul état xamul di doxe moo tax mu dëkkee waxi tojange ci doxalinu réew mi Maguette Sène Ousmane Sonko nit ñi xamee akus néew violé gu mu dëkkee violé secret d'état yi moo tax te ab fonctionnaire du doxee noone ci xët mu njëkku la tribune mu ne ñu fa moom Maguette Sène ab fonctionnaire dafa war a am réserve Déthié Fall ak Khalifa Sall ñoo ngi ci kaw Macky Sall journal lay fa moo ko bind ba di ñu xamal ne démb ba ñu demee ci banlieue bu Ndakaaru fa ñu waxee ne coono ak di dund lépp Sall leen ko teg ñu teg politique bi ci suuf jëlaat l'observateur ngir wax ci njublan gu rëy gi visa ci ministère affaires étrangères ak ci ministère France ubbil yéenekaay bi journal bi nee nañu gis nañu ca njublang ya ay menuisier ak i mécanicien yu ñu trafiquel seen i këyit leen ay inspecteur trésor ay infirmier d'état ay informaticien wala ay ingénieur agronome wutal leen ay matricule de solde ngir man leen a wutali ko bu baax gërëm ko sant leen yéen tamit ci safoo gi ak ànd gi ngeen ànd ak ñun benn waxtu jot na ba tegal fanweeri simili ak benn Pape Cheikh euh, la ñuy delloo lenge yi mu wéyal Midi Plus ak invité am di Sidi bu yombay Pape pourtant ñu ngi ñu ngi lay waxtaanee sànq ba tey di Bouya mu ngi may fàttali li nga ma wax sànq ci. Euh, entretien bi nga jotoon def ak euh, euh, moom. defe naa tey di nga kontaan parce que yow da nga bëgg littérature bëgg roman bëgg bind. Mm-hmm. te moom c'est c'est une fierté. il est il est il est il li ma leen wax Pape Cheikh daf ñuy jox tous les jours ah des leçons de vie. parce que comme ni ma ko waxee il est courageux. te ku ñu war a jàppale la Sidi Bouyo maa ngi lay nuyu. yàgg na de ah sa fait longtemps je pense que ñu ngi tase woon gox bu ñu naan HLM. 2015 <laughs> loolu yàgg na. yàgg na kay. c'était moom. il a elle a fait un très beau portrait. mais qui a fait le tour du monde. je pense que la la, la longue nuit la c'était la longue nuit et j'étais avec ma fille euh, assise sur mes a été. vraiment impeccable. c'est vrai mais elle ah, qu'elle est mariée elle était mariée en son temps. elle est mariée ah, madame madame ancienne gloire la. Ah, mais super madame Faye je l'avais prié pourtant j'ai prié pour ça. ah je vais prier pour qu'elle soit. moo taxit ñaan bi nangu na. ah macha allah et puis t'as dit qu'elle a fait un livre. ah ouais ah Fatick ah ouais j'ai cru waaw ah, j'ai cru. par si bay j'ai cru entendre ça. Ah, mais Fatick foog nga ñëw benn jour ñu waxtaanee chambre 7. waaw il le faut ah. ce serait bien ah. jour boo xam ne doo info matin doo journal. <laughs> du ma def dara damay ñëw ñu waxtaan. voilà en attendant le prochain livre. ce sera avec plaisir Pape Cheikh. merci en tout cas. ñu ngi lay gërëm bu baax. merci jërëjëf gërëm tamit euh, rédaction bu télévision Futur Média dig daje gi ak yéen ca kanam la à partir de 19 di am information non stop.